sama xol ziar Moussa ziar naa la bëgg doolu ziar na sant yàlla wér léegi dama waxante ki nga xamante mooy sa coach sa préparateur physique waaw euh, mu ni ma combat bi ni ko bëree sa xeex ak moom lan moo waraloon nga daw xeex waaw lamb ji du kese daw xeex euh, di nuyu waaye rax bi nga xam mooy loo may ndam comme li mu wax euh, dañ sant nañu xeex mais gis buntu baa xam ni public bi ñu ko exploité dina gën a gaaw moo tax ñu dem bi mais du question kaw daw xeex ku gis xam Moussa Ndoye xeex lañ ko xamee xeex lañ xamee Moussa Ndoye waaw combat boobu ñëw rek automatiquement nga ñëw rek brisque nga daw so parce que ko buntu ba parce que xam nga ngay léewtoo di léewtoo bu gis dafa leer nga dem jël ko rek ngay gis pour mu gaaw parce que ñun ay bërikat lañ bëri bëri mooy suñu mooy suñu métier kon suñu gisee bënd buntu bu offre dañ ko waroon mën a jël rek dem suñu mais dañ ko jël nag wax dëgg daw lu bari li daw lu bari bi rek moo waral ñu surux mais di wax ni beneen làmbaa ngi ñëw non gëm ñu du ñu dal. loo jàpp ni euh, loolu nga waroon def te defoo ko. wala loo jàpp ni nga waroon def te def ko. xeex xeex xeex daal laa xam ni waroon naa ko te defuma ko da jàpp ni kon waroon mën tax nga moom moom laa waaw xeex dañu waroon xeex bu baax sax. mais dañu sama sa adversaire xeexkat la. non ba mais xeexkat la mais man tamit xeexkat la. waaw mooy bu noonu nag. Mm-hmm. léegi moment bi nga doyee jël ko loo sant si moom poids wala doole. non entraîné na entraîné na yàlla may na ko ndam vraiment waaw mbër moom bu entraîné woon mbër moom mbër moom du jël combat ku toll ni Moussa Ndoye yooyu doo entraîné Moussa Ndoye tamit du jël ku toll ni Sa Thiès muy doo entraîné loolu mënul nekk ñu nga wër Sa Thiès ndomba Moussa moment boobu ngay prise Sa Thiès wër la ndomba moment boobu ngay prise prise boobu foo ko teg si doon billahi li bëri ni jàppoo li li bëri si mbabat bëri gu ke cër sa bëri gu ko si arène te dina jàpp di gis ñëw jàppoo moment boobu beneen naa mais boo gisee gis nga déclenchement bi mu jóg am na déclenchement boo xam jóg na ko waaw loolu la. ñu gis ni combat bi nga si ànd ak confiance Moussa. waaw nit bu nekk nga fecc. ba léegi nii nii nii nii daanu nañ ñu ngi waaw. nga gëm a góog ni daanu nan moo teg loolu. parce que combat daal dafa am lu bëree bëri ba nga xam la nga xam ne luñ ci musul dafa lañ def. si combat boobu waaw te day jëm kanam nag. dégg naa ni 30 millions def nga ko si. non dafa am sa xaalis bu bëri nag ñu ne ma 30 millions def nga si. dafa am bari xaalis bu bëri bu bari moo toll noonu wala. non ak lamb moo toll foofu léegi. waaw. jóge nga si sa ñoo ngi lay proposé kii di Diène Kaïré sa diggante yaa Diène Kaïré loo si wax. non loolu mënul nekk. mais gis naa da nga wax sax ni bàyyi seen baako doo ko ma mbëri yooyu avant ko déglu dama ne du ko waat foo teg doo jël jël ko lu ma si wax doo jël ko dama pareegul pour jël ko échange bi lamb moo leen boole waaw fu mu tegu bu ñu lamb boole rek jël ko sa fu mu tegu gars yi ñooy ñooy rek. Ah, am nga ki nga xamante ni yow Moussa Ndoye yow. am nga ki nga xamante ni moom nga. dëgg dama dama nekkaat ci contrat baax xam ñemee ñemee ko ma wax. waaw dama nekkaat ci contrat baax xam ma ko wax. yaa ngi ci contrat ko wax. est-ce que waa jooju nekkoon foofu kër rek ba pare lépp dina leer. waa ju gàtt mu dëkk parcelle. ah non wóoruma rek. est-ce que du kooku. non non non non. du kooku. non du kooku noonu. du kooku de. du kooku de. du ñamal ma kàlla xam nga promoteur bi daa xaw a tàng quoi. te mbokk nga de. promoteur bee tàng su ma si waxee rek. ñoo bokk wéeruwaay ma ak ko bu ñëw yaraax rek. dinaa ñëw boo ñëwee yaraax moom mën naa la wax. ok si lamb jàmm laa nekk su ma si waxee rek mën na ma demee neneen. jeex na dinaa la waaw incha waaw. Balla boobu dañu ko wax. waaw kon ñu waxtaan nee na. Balla Balla ak Bomb. waaw mu nekk le 31 juillet fii si arène moo ko tëgg. ñaari mbër yi xool nga leen ñoom ñaar ñëpp seen forme. non gisuguma Balla Gaye Balla gisoo si gis nga seen réseaux sociaux yi ñëw na. non gis naa ne ñëw na mais gisagu ma ko la wax. xoolal ko nii Balla gis kii bi écran yeeg yoon. non non gisagu ma ko gisagoo gisagu ma ko tal la am ñu wax naan Balla mi taxaw na. wallaay xëy na fan yii nag bi ma bëree bëri toogu ma dama ne dama ne ci voyage yi di defaraat ak yu bëri ak yooyu. waaw waaw moo tax nag xëy na dégguma ci lu bëri. mais xëy na balaa le 31 amaana tombé nga ñëw yarax mën nañ def benn mën nañ gis ñaari mbëri su boobaa boo ñëwee ma wax la fii daal. gis nga Bombardier loo ma mën wax si Bombardier. entraîné na macha allah. liggéey na macha allah. trop ci combat bi. gis nañu ko liggéey na bu baax a baax. loolu noonu si combat Bombardier Balla Gaye parce que ñu gis Balla Gaye dafa génn. combat Bombardier Balla Gaye ku ne gis na Bombardier dafa daan Balla Gaye. Balla dafa ne ku daan dama lay daan. loolu combat bi di métti.

li may digal li may digal daal mooy non violence bu ñëwee fii ku ci ku ci ki nga xam ne ñëw nga waxal ak say supporter ñu daf def dal te xam ne ñun suñuy suñuy mag lañ suñuy kilifa lañ ñun su ñoom la ñuy xool bu ñu yàq bu ñu def loo xam ne dañ leen ciy jépp wala dara incha boo jàpp ne ko est-ce a indi lépp. na kañ sàmm ñu agressé ndem ak ma la ku si ne loo wax di nga ko def boo mu borom jom la borom fit la bala borom jom la borom fit la ku si ne loo wax di nga ko def. kon loo mën a wax si làmb jooju. nañ feesal nañ defar stade mu fees dell stade bi na am sécurité surtout na am sécurité. agression bëri na fi. na sécurité agression bëri na fi ñoo yëpp mu fi am kon ñun mbëri tamit nañu bàyyi xel ni dañoo war a dañoo war a jël suñuy matuwaay su suñuy supporteurs ñu xam ne ñun mbëri duñ ay noonu ay adversaire lañ pour trente trente minutes. suñ ci paree pare nañ si mbëri boo leen gisee dañuy bokk ndey bokk bàyyi kon supporters yi war nañ def bu ñu bëree pare sax ñu lëngante saafante ku la dox dem ñibbi si dans si normalement si yar ak teggin parce que mbër mi mooy def si poosam deful supporter benn poos supporter kon yàlla yàlla def jàmm mais nag encore une fois sécurité na gën a bari na gën a doy ñu ngi koy dégg Pégaso di ko ñaanal réussite ci combat boobu ak combat yi si kanamam yëpp si barke yonent bi. ñoo lay boo gisee combat bi dama def live sama Facebook ba ba ba ñu waaj a romb Padois ma door arrêté. lan moo waral loolu. waaw nit ñi ñoo nama bis yu nganda yi waa Yoff. ñoo ko nama tey xam nga ni bis bi tey bis bu rëy la. bis dégg nañu Modou li nga xamante ne wax nag si li nga xamante ne moo doon open press am. mu ne ma Modou lépp lu mu wax. waaw bu duggee si géew bi lépp dina leer. waaw loolu moom moom lañ ko war a wax moom moom moom moom la ñu war wax loolu mais kii jëfkat boobu tey gis nga forme bi macha allah forme bi mu indi tey gën na ko indi si làmb foo jàpp ne tey euh, war ne mooy ca a def waa yow kon si combat waaw yow ñu yokk ñaan rek xale la war na fa mën indi victoire bu nekk ñun ragalu ñu féetex moom suñu rakka la waaw nga si rifëre ah nga si rifëre sama rakka la rakka lépp la kay. rakka mais foo toll. boo sama néegu sama photo photo ngay gis. def si les deux frères. mais foo toll. man maa ngi si entraînement yi rek. dégg nga nag lu mu lu mu wax nee naa ko mu duma la. ne ma maa ngi ñaanal liggéey bi si kanam parce que